boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli dit lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraayi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki njabootug maam Sayer Binta mbokki njare njabootug maam Demba njare mbokki dëkkandoo yi mbokki lislaam ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a sakkanta doy béppum nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan yàlla saa borom nuyoo bi loolu mu làmboo muy barke ak yërmande ak ak ak euh, sa jàmm ñaan yàlla sotti ko ci jataay bi ñu nekk ak mboolem kuy dégg suñu kàddu di nuyu bu baax mbooleem njare gu fi teew di sant bu baaxit it mboolem njare balangeer ci njiital alxaaji sayar maram kan te ñu wax ko léegi nekk fële ca Touba Ndiaye yabal fi délégation bu am solo waaye yabal boole ci addi ju am solo wax ci làmmiñam ne aw nag la yéene woon waaye lim joxe wuutiwut akaw aku nag kon ñu ngi koy seedeel mboolem ku bokk Balenguer bàyyi Sayer Maram Kane ak mboolem ay rakkam indi na fi teraanga joo am solo joo xam ne bis bi buñ ci doon am tiit wala njàqare teraanga jooju dana ko mën a fànq di nuyu bu baax suñu jur yi nekk ci biir jataay bi xam naa bu ma juumul bay ceeb bi maram moo ci war a mag ñu ngi koy ziar bu baax ak mbooleem rakkam yépp bu ci magut it ñu ngi koy jégalu bu baax waaye am na njort ne moo ci mag kon ñu ngi koy jaajafal bu baax di ko ziar di nuyu bu baax bàyyi moo roqee mi nga xamante ni gox bii ñu nekk moo ci kilifa gi di am mbégte lool ci jataay bii nga xam ne at mu jot rek ñu baaxoo ko amal fii ci dëkk bi wala fële ca Balanguer ñu koy ànd ak suñu woy jur yi di ko ànd ak suñu rakk yi ak suñu bàjjeen yi ak suñu yaay yi mu nekk ànd bu rafet ñu tàmbali ko tàmbali bu yàgg depuis 2017 ba 2007 ba léegi 2007 ba léegi boo ko xoolee at yi ngi bëgg a bari am na si ñoo xam si tey jii ñoo jiite liggéey bi te jamono jooju mën na nañoo wax ne ay tuut tànk la ba tey ay tuut tànk lan waaye jamono jooju leen gënoon a doon ay tuut tànk boobu ba léegi nag ñu koy ànd ak suñu wayjur yi muy rafet lool di am yokkute lool ba tey jii di mille vingt 2024 ñuy ñaan ñu dem ba di ko euh, mm, di ko feete di ko woote ay at yu baree baree baree bari te mu ànd ak jàmm ak wér ak wérle mbokk yi li ñu fa dajale mooy maam Sayer Binta moom lañuy wax naan moom moo sanc njare Balanguer maam Sayer Binta moomu dafay yell ci ñun képp koo xam ne ab sëtam nga ak noo ci mën a sotoo nga bàyyi ko xel bu baax ñu xam ne moom moo ñu fi dajale maam Sayer Binta moomu nag daanañ ko jàngale ci groupe yi nga xam ne moom la bokk bind nañ ko ab journal def nañ ci ay jataay yu baree baree bari ngir rek sama classe gi man koo xam bu baax xamit ak njabootam maam Sayer Binta moomu moo meñ mboolem ku dëkk njare balla ngeer maam Sayer Binta moomu nag maam Masamba Kumbaan moo ko meññ Masamba Kumbaan moomu moo am maam Mapenda Binta ak maam Baara Binta ak maam Njaay Pàq Binta ak maam Sayar Binta ak seen jigéen soxna Kumbaan ñee ñoo sanc kër ma Penda Sayar Binta moo sanc njare ball ngeer kon histoire bi sax du ñu taxaw yitteel bu baax a baax a baax dafa am leneen lu ñu wax pour ñu wax ko waaye ñu xamle ko rek bu baax moom Sayar Binta amoon na juróom-ñeenti bant juróom-benn yu góor ak ñett yu jigéen juróom-benn bant yooyu ab taaw mooy maam Masamba Faati Gay maam Ndiaye Paq Faty moo ci topp maam ma Penda Faty Gueye maam ma Xuja Faty maam Baara Fa Jaañ maam Njaga Sekk ak soxna Fayoro ak soxna Binta Xaasam ak soxna Kodde Xari Njaay ñooñu ñooy njabootuk maam Sayar Binta bu ko defee ñu bàyyi xel bu baax maam Sayar mi ngi gane mi ngi génn àdduna 1887 te wax na ne ñetti at rek la def Balenguer comme foofaa danaan xam ne Ballanguer ñu ngi ko sanc 1884 wala 85 ndax ñettaat at rek la def Ballanguer daal di wuy ji suñu boroom subhaanahu wa taala maam Sayar Binta moomu nekkoon Kër Mapenda ak i doomi baayam nekkin wu rafet yàlla mayoon ko mu nekk ku am wërsëg lool yàlla mayoon ko mu nekk ku am teraanga lool nga xam ne mag ñi bu njëkk nin daa dunde mooy ngir dëkk yi di sanc ka sancaat ngir yaatal njaboot gi ngir yaatal famille bi rek lañ ci jublu loolu moo sabab mu dem njare balla ci tënk ngir yaatal askanu njare bi mu ñëwee njare balla ngeer nag du dëkkiwu rafet la fa nekkoon di jàng alxuraan di jàng ma mboolem loo xam ne jamono jooju daanañ ko jàng muy yaca aju yépp di jaamu yàlla di bay di dunde di sàmm aw aw aw askanam ak njaboot ci loolu lan nekkoon ci ku mel ne maam ma Masamba Fatigay mi nga xamante ne moom la yabaloon mu dem fële des fële ca njara sayar ba àgg keroog ni muy àggee jékki kooku it boo demee ci ab journalam defal nañ ko ab journal danga ca gis moom it kan mooy maam ma Masamba Fatigay maam maam Ndiaye Paq Fatigay kadalika maam Penda Fatigay kadalika ñi nga xamante ne des nañ ci njabootug maam Sayar Binte nga xam ne bindalagul leen ab journal loolu it ñu ngi ci yaakaar naa kenn moo des wala ñaar incha allahu taala wala ñett bu ma juumul loolu it ñu ngi ci am na yoo xam ne gëstu nañ ko waaye des na ko bind ab journal ngir ña ca bokk ñu mën koo xam bu baax a baax a baax a baax Balanguère nekkoon nekk dëkk boo xam ne dëkk maanaam xam-xam la mën naa wax ne Balanguère université la ay taalu jàng yu bare bare bare daan fa tàkk ba tey di fa tàkk ba tey di fa tàkk mooy boo demoon Balanguère tey jii da nga fa fekk daara joo xam ne dañuy jàngalal Alxuraan soo ñëwoon ci Tuubaa gii seti maam Sayar Binta ñi ngi yor ay daara di wéyal liggéey boobu nga xam ne seeni maam ñoo ca nekkoon loolu mu nekk lu rëy dañuy wax ne am na góor gu nekkoon kër yi bu ma jumul wala njara Sayar nga xam ne bu daan tas ab kaamil day wax ne bu ci ku bokkul ballangeer bokk du kaamil boobu du ko mën a tàmbali mbokk yi loolu lu rëy la lu am solo la loolu néew na nga dem njare goo xam ne gisoo fa ku jaar ballangeer ngir jàngi alxuraan loolu ba tey jii loolu mooy wéy yàlla na sax ñu nekkoon dëkk boo xam ne dëkk bu ndaa sàmm seen ñoŋ la maanaam seen seen seen alal di bay di dunde di di di jaamu yàlla di yar seenu njaboot ci toppante ki mag ñu jox ko cëru mag jur ñu teg ko cëru jur loolu la suñu jur yi nekkee suñu mag yi ci loolu la nekk tey loolu la ñuy xirtal sama classe gi nañu toppante benn par benn ku nekk ka nga mag kala mag na ko jowek jox ko cër bu baax a baax a baax loolu la way yuri di digle tey ci ñoom loolu rek la ñu nekk loolu ku teew ci jataay bi wala teew ci yeneen jataay nga xam ne suñu way yi képp koo xam ne féete na leen mag donte benn fan la da ngay gis manzila bu bu am solo maanaam wàccuwaay bu koy jox loolu nañ ko royee ci suñu way juri nañu royee suñu way juri ba tey dëggu dañuy wax ku dëkk bala ngeer dafay am na baat bu ñuy wax loolu dafa am lu firndeel loolu mooy gëm sa bopp bëgg sa bopp xam yow yaay kan ku dëkk balla ngeer warul wax muy dañ kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax sama classe bi nga xamante ne bu ñu waxee ñu ne accam xanaa du xaadi ma ko wax loolu nañ koy moytandiku képp ku dëkk balla ngeer wala ku dëkk njare na ngay moytandiku wax muy dañ wax muy dañ nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax nañu bàyyi xel ba tey maanaam li ñu faggu di ko jox suñu njaboot suñu jur ñu ngi ñuy digal loolu ndax kat bokk na ci ki nga xamante dafa bëgg am ijaaba maanaam bu ñaanee mu nangu dafay fexe ba di sàkku lu lew di ko di ko dundal ak njabootam loolu it suñu waajur yi ñu ngi ñu ci xiirtal di ñu ci di ci soññ bu baax a baax a baax a baax bu ko defee soxna yet ñu am am am maanaam wàccuwaayu rëy ci seeni borom kër ñu leen di bàyyi xel di leen déglu loolu it suñu waajur yi ñu ngi ñu koy digal ci mbooleem koo xam ne maanaam soxna nga te aju ci Balanguère wala sax si aju ci ci njare ak ku man di doon nañu xam ne jamono jii jamono yàquwut ñun ñoo bëgg a yàq jamono mais jamono moom fa jant ba den fenk ak di fa sowe ba tey jii foofu ma lay fenke ba tey foofu lay sowe kon nan xam bu baax a baax a baax a baax jamono ji nu mel bu mu ñu fëkkaale nan xam bu baax jox cër bu baax a baax a baax képp koo xam ne war nañ koo jox cër loolu la suñu waajur yi di di di dénkaane teyit moom la leen di bàyyiloo xel bu baax a baax a baax kon daal ci tënk leen bëgg a xamle mooy maanaam démb niñ doon dundee ba tey mën nañ koo dundee ba tey ñoom suñu jur yi moom la ñuy dundee dangay gis suñu wayjur yi ku ci jóge Europe ñëw bis bu set da ngay xëy mu dem ci kër genn ci magam yi wala rakkam yi di ziyaara ji loolu nag doo gis am Touba Ndiaye mu ko def doo gis am moor Ndiaye mu ko def doo gis am Abdourahman mu ko def suñu wayjur yi jot googu ñu am yaakaar naa ne bu doon jot la ñun ñoo leen ko di dem di nemmiku di di xëy di dem di di nuyoo ji ba ku ñëw rek dañu xam ne xel diw ñëw na loolu bokk na ci ni sëñ Mouhamadou Ndiaye doon waxtaan léegi maanaam jokk mbokk dafa bokk ci effort bi ngay def di dem di seeti nit kon ndaw ñi loolu nañ ko bàyyi xel bu baax baax a baax a baax loolu it suñu waajur ñu ngi ñu koy ñu koy digal bu baax baax a baax a baax bokk na ci yi war a bàyyi xel mooy famille bii di njare balla ngeer am na kàddu yoo xam ne maanaam euh, suñu waajur yi yóbbante nañu wax nañ ne kat li nga xamante ne moom loolu lan yoroon wala ba tey moom lan yor muy ñu koy wax daayira mag ñi wala boog euh, keesu mag ñi comme ni ñu koy tuddee loolu kat nit ñu ngi ci tàllal loxo ay at a ngi ni woo kon loolu kenn waruñu cee woo suñu yëf la suñu mbir la bépp mbir boo xam ne ay mag dañ ko dañ caa nekk ñoom kese gis ñu ci aw ndaw mbir moomu mën naa bañ a sori waaye bu baree ay ndaw rek mën nañ ci am yaakaar bu baax te askanu Balenguer ndaw yi ma gis am nan xam-xam am nan euh, maanaam euh, am nan expérience xam nañ fi ñu teg seen tànk kon woote boobu suñu suñu mbir la kilifa yi ñu ngi wax bu gannaaw subaa ci altine ji ñi ngi am woote bu ñuy woote fii ci kër Baay Ibra Xadi ñi ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne sa baay balla ngeer la dëkk ak koo man di doon ku am soxna ak ku amul soxna ñu nekk biir réew ak ñu bekk bitim réew nan ñëw ci liggéey boobu ñu jàppale leen ci te jàppale leen ci mooy jàppale suñu bopp xëy na bu buñ fa àggee ca daayira ba des na ko gën a yaatal bu baax a baax a baax a baax a baax xalaat yi yan fa war a rotal yépp bu ndee ba ñoo xam si ñun ñunu neen lan daan ko gën a yaatal bu baax a baax a baax waaye daal nan doon doxe bu njëkk ñoom am nan ak coppite guñ ci bëgg a guñ ci bëgg a guñ ci bëgg a dugal loolu nan ko bàyyi xel bu baax kon sama kalaas gi ak sama rakk yi sama mag yi loolu mbir moom suñu mbir la nan ko bàyyi xel bu baax ndax kat maanaam jamaatu rahma mbooloo mooy yërmaane waaye mbooloo mooy doole maanaam bari na yu baree baree bari suñu moor wax na ko léegi soxla yu ànd te faju yoo xam ne mënut a faju booba mbokk yi ànd dañ faa nekkul kon soxla lu mu rëy rëy rëy rëy mbokk yi ànd nekk fa soxla soosu du taxaw kon nag lii ñu suñu waayur di ñu woo ci loolu rek la jëm fexe ba lépp loo xam ne Balla Nguer mi ngi koy naal ñu fexe ba réussir ko réussir ko 100 pour cent loolu lañ bëgg ak lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek ñu mën caa ñu mën caa yegg bu baax di dimbilante ku ci néew doole ak ki ci am ki ci am doole kenn du leen xàmmee foofu leen bëgg a yegg teyit ñoom ña nga ca woon bu baax a baax a baax xam nañ ko bu baax xam nañ li ñuy wax ñoom ña nga ca woon kon ñun leen bëgg a joxañ mbir mi ñu jaarte kon woote boobu maa man sama kàddu maa ngi ci yow képp koo xam ne sañ naa laa woo bu al altine ak jàmm incha allah bi nan fa dem ku nekk xalaat ba nga amet nga xam ne xalaat buy defar la ndax lii ñu sas muy muy tour de bi xam ne Balla Nguer bokk na ci ñi ñi ko njëkk a saj ci ci biir ci biir Touba ci biir famille askanu maam Demba ñi ko njëkk a tàmbali di def tour de famille Balla Nguer bokk na ci bu ci bu ko ji bu ko njëkkut a def it bokk na ci ña ko njëkk ña ko njëkk def kon nga xam ne depuis 2000 2007 ba léegi lu tolloog fukki at ak juróom nangam loolu bu doon ay caaxaan la mën naa wax ne daanu na bu yàgg kon nan dem yëkkati mboolem lii du tax nag lii taxaw lii day continuer di ko def ndax daa nañ ko def Balla Nguer suñu waajur daanan dem Balanguère njëkk ñun ñuy dem Balanguère daanan fa dem ay at mujj yi ñu ñu ñëw di dem Balanguère ñu ñëw di ko defe ci dëkk bi ñi nga xamante ne mënuñoo dem Balanguère di mën a ñëw ci biir dëkk bi loolu dong lay jariñ kon ak yeneen yeneen yoo xam ne buñ demee ba àgg ceeb daayira ba des na ko des na ko yaatal bu baax a baax a baax di sant nag bu baax fii ñuy defee ndaje mi nga xam ne ah, njabootu Baye maam Ndiaye Paq màggat sëñ Baara wax na ko léegi Baye Fallou Thiele nekk ca bopp ba nga xam ne bis bi ñu ko jàppee daaw jéeg wala daaw lan foo waroon a def ndaje mii daaw jéeg bu ma juumul wala daaw lan foo waroon a def ndaje mii waaye nag jamono ni mu bindoo at mu année boobu bu ma juumul année corona la nga xam ne lu bare bari yëngu-yëngu yu bari dafa taxaw ci mboolem Sénégal wala lu lu romb Sénégal moo tax defuñu ko année bii jàll ñu fexe yàlla dégool ñu dem Balanguer ren ñu ne duñ ko jàppaat feneen dañuy fedd li fan ko jàppoon bi ñu ci waxtaanee moom mu rafetlu ko lool lool. ba pare jox ñu ci ay ndigal yoo xam ne tey jii moo waral jataay bi ak si fii dafa am ñu ma woo di ma wax ne lu tax ñu koy defee kër nangam kër nangam waaye bi ma leen leeralee li sabab bi dañ caa bég lool ñu xam ne xëy na réeroo amut waaye ñàkk a ñàkk waxtaan moo am kon loolu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax di sant bu baax nag Baye Fallou ak mboolem ay rakkam Baye Abdourahmane ak Baye Baye Baye Cheikh Mbaye Thielé ci teraanga ji ndax dañ koy wax mu leer tey jii képp koo xam ne añee nga fii ci kër Baye Mbaye Thielé muy tour rafet bi añalu la Baye seex mbay cere moo la añal Baye Fallou cere moo la añal mboolem seeni rakk ñoom ñoo la añal loolu nag mën na wax ne benn la sotti seek def ci la ndax seenu njaboot la seeni doom lan seeni seeni seeni seeni yëpp lan kon ñu leen di sant bu baax ci tur bas bi nga xamante ne ndaw la tam moo jiite euh, mboolem famille Ndiare Balla Nguer ñu ngi koy sant bu baax ñoom nag seen waajur di bàyyi euh, maam Ndiaye Pàq màggat maam Pàq màggat moomu ngir ñi sa bokk ku mel ne kalaasu baara mi nga xamante da bokk te xamul sax maam Njaay ñan la jaboote dafay warteef ci ñoom ñu xam seen maam ñan la jaboote loolu képp ku bokk ci askan wu man di doon soo bëggee gaaw a xam bokk dangay njëkk a xam fi nga bokk ba pare da njëkk xam fi nga bokk ñen ñooy say say say baay say baay ñen ñooy ay doomi baayam su paree nag ngay jëm nag di di avancer di gën a jëm ci fu sori boo xamee maam Njaay pàq ma màggat ba pare nga xam maam Njaay pàq màggat ñan la bokkaloon nga ne moog moog maam Baara Binta ak maam Mbacke Binta ñoom ñoo bokk soo xamee loolu ba pare nag nga xam nag kan mooy baayam nga ne maam Ndiaye Paq Fadigay mooy baayam maam Ndiaye Paq Fadigay ñan la bokkaloon nga xam ñooñu maam ma Penda Fadigay maam ma Xujja Fadigay boo paree nga xam nag ñooñu ma Ndiaye Paq Fadigay ma Penda Fadigay kan mooy seen baay nga ne Sayar Binta bokk noonu nga koy xamee da ngay xam fi nga gën a jege waaye da ngay gis koo xam ne day xam mën naa xam ma Samba Kumbaan xam ma ma Lamine Maram ñoom ñëpp waaye boo ko laajee sa baay ñan la bokkal ak sa baay ñen ñoo ay bàjjanam sax du ko xam loolu dangay ngay gaaw a réer kon ñu bàyyi ko xel bu baax bàyyi bàyyi bàyyi maam Ndiaye pàq moomu ñi mooy ak njabootam bàyyi fallu cele ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi loolu te weral ko ak bàyyi Abdourahman ak bàyyi Cheikh Mbay cele ak bàyyi Moodu Maram ak bàyyi Moustapha ñu koy wax bàyyi Ngañ bàyyi Moustapha Ngañ ak bàyyi Xaadim Ndiaye ak bàyyi Moodu Ndiaye bàjjan Sooda bàjjan Soxna Mbàkke bàjjan Faati Amar bàjjan Ndumbe Sey bàjjan Xawa Balla bàjjen njangta njangta Ndiaye bàjjen Yembu Ndiaye bàjjen Ami Ndiaye bàjjen Mame Fatou Ndiaye ak Serigne Fallou Ndiaye am na meneen Serigne fàllu mu bokkut ak Baye Fallou ak bàjjen Khady Ndiaye bàjjen Diarra ak bàjjen Asta Silla ak bàjjen Mame Kan Ndiaye ak bàjjen Kumba Kumba Goli kon bu fekkee amul ñun bàyyi ñii mooy li nga xamante ne tey ji jotoon nañ koo gëstu ci Mame Ndiaye Pakh Mame Ndiaye Pakh moomu nag euh, ma Mame Ndiaye Pakh Fatigay mooy way juram wax na ne euh, bi avant mu judd rek la way juróom boobu di maam Njaay Paq Fatigay génne àdduna bi mu juddoo ñu tuddee ko waay juróom loolu moo sabab moom mu tudd maam Njaay Paq way juróom tudd maam Njaay Paq wax na ne maam Njaay Paq Fatigay moomu mi ngi mi ngi faatu 1918 1918 te maam Njaay Paq mii màggat année boobu la judd maam Ndiaye Paax màggat mi ngi faatu moom it mii ñu mii ñu defee ci euh, di waajuru Baye Cheikh Mbaye Thiele ñoom 1994 ci ci ci euh, fii ci Touba ñu denc ko fii ci fii ci Touba mu nekkoon koo xam ne jaar na Ballanguer jànge fa moom moom moom moom moom maam Ndiaye maam Ndiaye Paax jaar na jaar na Ballanguer jànge fa jóge fa ak tarbiyaam sëñ Fallou Ndiaye la njëkk a àndal moom sëñ Darou Assane bam ko tarbiyaa ba gisatu ko mu ànd ak Serigne Mbaye Fallou ci noonu mu tarbiyaat sëñ bi faalo ba sëñ bi faalo wàcce ko gërëm ko mu wéyal ab liggéeyam ci ba mu ko gisatut sëriñ Cheikh Mariamu radiyallahu anhum ba ni mu jóge ni mu nekkoon Daaru Njaay bi sëriñ Moustapha ba nekk jóge fa doo ko dem fële ca Daarul Bayda ci eh, eh, année yoo xam ne mooy yi ñuy gas eh, tiwoo ndox baa ngi ci aju yëpp kon yooyu nga xam ne sëñ maam Njaay Pàq Euh, jaar na fa xam naa ci tënk rek waaye incha allahu rabbi am na journal boo xam ne defoon nañ ko ci njabootu maam Ndiaye Pàq Fatiga yi ku ca dellu da nga xam kan mooy maam da nga xam ak njabootam bu baax a baax a baax léegi nag yow mi nga xam ne yaa bokk ci njabootu maam Ndiaye Pàq màggat boo bëggee xam sa maam dëgg-dëgg yéen ñi sa bokk yéenay dajaloo ngeen fexe ba defal ko ab journal boo xam ne képp ku ci bokk maanaam askan woowu dootu dootu réer ñoo ngi koy ñoo ngi koy digal ñëpp. maam Njaay Pàq moom yi nag wax na ne ku yàlla mayoon la ku manoon li nga xamante ne moom la jamono ji nga xam ne bari na lool ñu koy def muy wàllu asraar te yàlla mayoon ko ci lool moo ubbiku woon ci lool daan ci faj ay aajooy jullit yi yàlla déggoon na ko lool lool lool kon ci tënk rek loolu lañ doon tënk ci maam Njaay Pàq fi ñu daaneele nag mooy fi ñu daaneele nag mooy maanaam ñun waa askanu njare Balanguer jataay yi ñuy am dafa am jataay yoo xam si moo koy jiitu xam naa président bu ñëwee dana ci dana ci laal muy réunion yi ñuy woote la cinq wala la première ci weeru nekk réunion yooyu kat moo jur ndaje mii képp koo xam ne bokk nga ci askanu njare Balanguer bokk na ci famille bi nga xam ne ñooy gën a néew lu ñuy laaj social social yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax jëwriñ yi ci nekk ñu ngi koy soññee bu baax ndax ci lan mën a maanaam jëmmale jataay yi ak yeneen jataay yu ni mel ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp bu baax a baax a baax a baax di sant bu baax ni ñu ko waxee léegi délégation bi jógee Touba Ndiaye dafa sedd suñu xol lool président bi ñu koy fàttali soxna Fati Kan di soxna Baye Sayar maramkan ak soxna Jabbe Guèye ak soxna Ndey Cooy ak njabootam suñ bàcc bàcc Maram Kan ak ibra Ndiaye ak Cheikh Cooy ak Cheikh Faye ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant ba tey suñu wayjur Baye Mapenda Ndiaye Dakar di doom ci Baye Sayer la wala maam maam Sayer Asaballa Baye Baye Mapenda moom dakaar lu jóge mu ngi fii ci jataay bi e, ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak tawféex di sant bu baax délégation bi nga xam ne moo jógee Balla Ngeer ci njiital Baye Alsaan Ndiaye mi nga xam ne moo fa nekk ñaan yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal magam ja Baye Touba Jaxeer yërmande yàlla ak ak njëggalam ak mboolem jiitu ji délégation boobu Serigne Cheikh Assane ma nga ca ak rakkam Serigne Dame Sey ak mboolem ñu mu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant it suñu mbokk suñu rakk jóge ba fa fa fële ci Njarawàqe teewal fa mboolem koo xam ne ball ngeen nga dëkk te féete fa fële ci Njarawàqe muy suñu rakk di Sayer Maram Sayer Sayer Ndiaye Baye Sayer Ndiaye di doomi Baye Mor Koti moom it ñu ngi koy ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay bi ci suba ba léegi mi ba tey jamono yi waxee yéen mi nga ànd ak ñun ci biir baas bi ci turu Serigne Bassirou Ndiaye mi président mi ngi sant ñoom ñëpp di leen gërëm di sant bu baax suñu doomu bàjjen yi suñu doomu nejaay yi addi yi jin fi indi yëpp alaaji Ndiaye ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ak lamp mi nga xamante ni si buñ xëyee ba léegi ñoo ko ànd liggéey bi Ibra Jaxeer ñoom bàyyiwuñ kenn Baara Ndiaye ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn photographe di eh, taxawal foofu rek li ñu joxoon pour ñu wax ko bari na lool waaye waxtu yi moo xat ak toogaay yi nga xamante ne kilifa yi toogaay bi metti na ci ñoom jërëjëf sëriñ Xaadim ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bu am solo boobu le nga xam ne ak naa képp ku doon bàyyi xel jataay bi rek ginnaaw waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom la sëriñ du Ndiaye doon def moom sëriñ Xaadim bi ñëwee indiwaat na yeneen leneen lu am solo loo xam ne mën nañ ne mooy sabu jataay bi li ndax fàttaliku na dunduk suñu maam yu baax yooyu nga xam ne borom bi dogal na ñoom noonu lañ doon dundee ci Balanguer tàmbale ko suñu maam Saer ak njaboot gi mu fi bàyyi ba ci ci suñu waajur yi waaye indi fi tamit ay dénkaan yoo xam ne bàyyi ko ne suñu jur yi jëm ci ci ñun njaboot gi su kon ñoo ngi koy bu baax moom seen xaarim di ko gërëm xam naa lu jiitu rek ñuy jàll ci beneen tamb bi e, di jottali ay cant ak ci ngërëm yoo xam ne borom bi dafa dogal mu bàyyi ko ci suñu waajur muy suñu nijaay di. fal lu Thielé nga xam ne tey mën naa ne njabootu Ndiaye Park yëpp ci ginnaawam la ñu topp te bu ñu tuddee Baye Fallou tudd Baye Abdou ak Baye Cheikh Mbaye mi nga xam ne borom bi dogal na moo leen teewal ci jataay bi ak suñu yaay tàmbalee ko ci suñu yaay soxna ak boolem ñu bokkal njabootu Ndiaye Park yëpp rek Baye Fallou di wax ne xolam sedd na bu baax ci jëf ju kawe ji nga xam ne moom lañu amal. fii ci buntu kër suñu maam jooju di maam Njaay Pax waaye mu wax ne jëf ji ñu def fii tey wuutalewu ko rek ak yeneen jëf yi nga xam ne noonu lañu ko daan defee ci yeneen buntu kër mu wax ne même bu ñu ko defu doon fii sax du tee fa fu ñu wooteel njare ba liggéey dana dana fa teew waaye dana soññi njaboot ko tamit ñu teew fa loolu moom ay kàddoom la su ko defee day mel ne kàddoom yóbbante woon day mel ne rek bi sëñ Xaadim ñëwee loolu la wax muy ñu a fonkaat ndonal maam yooyu nga xam ne moom lañ fi bàyyi muy jaamu yàlla di liggéey lu lew di ko dundee te di dundal ak bokk saa su nekk mu ne loolu tamit mu ngi koy bàyyiloo xel bokk yépp su dee ko loolu ay kàddu la yoo xam ne moom suñu nijaay jooju moom moo ñu ko yóbbante woon su ko defee tamit di sant ñëpp di leen gërëm ci turu ndaw ñi nga xam ne ñoo seeti maam Ndiaye Pakh te man man naa ne mën naa leen a waxaaleel ndax yàlla dafa dogal ne ñun suñu waay juru jigéen moo bokk ci famille bii di Ndiaré Balla Gaye waaye Touba wala sax bokk yi ñun ci njabootu Balla Gaye la ñu féetale fu ñu wootee dañuy wuy ji bu ñu waree wax mën nañu ñun la ñuy wax loo ndax ñun la ñu tuddee géwalub Ndiaré Balla Gaye du dañ cee dàq wax waaye day mel ni li suñ xaayim doon wax sànq loolu daf cee feeñ ba di xeeñcu ndonal maam yooyee tax ñun ñi nga xam ne suñu suñu borom dafa dogal suñu jur bokk ci njaboot gi bàyyi xel gu ñu bàyyi xel tax na ne lépp lu ñu war a wax mën naa ne ci fin bi saa yu accès ci jataay yu mel nii ñun lu mu néew mu bëri danañ fi jël kàddu te loolu xam nañ ko xam nañ li ñu seq suñu diggante ak ñoom loolu moom ñoo ngi koy soydel bokk yëpp rek su dee kon day jox kàddu gi rek sëñ moor mën nañu tuuti ci ab taalif incha allahu taala ñu daal di jox kàddu gi njaboot gi nga xam ne tey ñoom lañ dara jaale bis bii di njabootu njare sayar di dogal ngant ñépp nag ñiy dégg way wi fi nar a jaar ndax bokkul ak way yi daan am di jëm ci ay yeete walla mbokk mënu bokkal xëy na xale yi ñoo ko sànk woon sàkk woon rek muy way woo xam ne mën nañ koo jàpp ak animation waaye lu ñu mën a doon rek ñoo ngi koy jéggul rawatina way jur yi kon li ñuy sàkku rek su way wi daanoo saabu bu daanoo rek nañu àndandoo ne bajaraa maa ngi baj baji ku fi teew maa ngi lay dalal di la wax maraban njukkal dalalal yow sa xel mu dal nanga taaral tamit sa xol ku la bañ noo du baj baji bajaraa maa ngi baj baji sama mbokkay sama xarit ba waral man ma jël kayit bind way def ci ay bayit xaadim njaay awaneel bërét suma àddoo danan daje bajara maa ngi baj baje njaraba lay sama dëkk ku fi toog maay ki lay tagg góor jigéen samay rakk ku leen laal maay ki lay rëkk sama ngàddee mu baj baji maa ngi ñaan wér gu mat sëkk samay mbokk saay sang te di ñaan jàmm wér peng na pelang fëgg saay mbagg jërëjëf noo ngi baj baji ma ne man moor sama dëkk bal ngeer bal njaay sang njaata njaay njaay jaraw lakk yëngatul yëngu yag yag suma tàccoo ñu taj taji su ma lay tagg ngay firi su ma lay xas nga may mere su ma noppee nga may sori di ma siiñ naa ma neexire nga la tàccul ñu taj taji su ma àddoo danan daje gësamul yëngu baj baji yëngatul kaa ñu jox daje bajara tey ñu baj baji ku fi toog tey xolam di féex ku fi ree ay bëñam di weex na ko sante saa borom lu fi neex mooy ki tax mu neex su ko neexee mu tëj tijji li ma fiy sàkku saa borom na nanu may xaas te may ñu koom nañu may wér defal ñu ndam teg ñu leer ba dun gëlëm duñu coowoo ñun di wej weji maa ngi ñaan buur bi gudd fan gudd fan fekk koy déwén di mag ak ndaw góor jigéen ku ne amin te nangu ñaan ba ñu dem màkka dem aji bajara maa ngi baj baje ok jërëjëf sëñ Mor ñoo ngi lay sant bu baax ci tënk bu gàtt boobu rek bu am solo boo xam ne lu mat a bàyyi xel comme ni mu ko waxee ndax borom bi dogal na lii du gan ci jataay bi waaye at bu nekk rek ak mbokk yi fi ñu génn ndax boroom bi dogal na jotaay yi daa jiitu yëpp rek ku ne xam na ne lu mel nii daana am ak nuñ ko mën a daan jëmale rek waaye tey suñ borom dogal mu jëmale ñu ko fii moom it ñu di ko ñaanal moom suñ Mor suñ borom nam moom xelam yàggal ko fi ndax kuy def fii ca la ci njaboot gii di njabootu Sayer Binta waxtu nekk mi ngi ci jeexal dooleen waaye jeexeel ci alalam jeexal ci xam-xamam moom suñ moor ñu di ko ñaanal suñ borom dool yàggal su ko defee kon dañuy jox kàddu gi rek njabootu njareeg sayer gi nga xam ne borom bi dogal na ñun ak ñoom ñoo bokk te ñu dara jaari leen bis bile wax ci seen kàddu di sëriñ Codé Ndiaye matériel bu sëriñ Daarul Xasan su dee kon sëriñ Codé rek incha allah moom la ñuy jox mu ñëw yëkkati kàddu Ndiare Saer si njiital sëñ Abdoulaye Ndiaye kon suñu côté bisimilah. billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen nuyu baax tey di leen ziyaare di leen ndokkeel tey di leen ñaanal jàmm tey sàkku ci yéen jàmm jooju di ñaanal saaxibil fadil Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi doon jotaayam Seexul Xadiim suñu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi di ko ñaanal Cheikh Abdoul Khadir Ndiaye mi fi toog a jotaayam Cheikh Darou Assène suñu borom guddal fanam lool wéral ay cëram ay rakkam ak taalibe yi ci jotaay bi moo xam ñu góor yi wala yu jigéen mag ak ndaw di nuyu. mboolem kilifa yi njare di sos ñu nuyoo ci mboolem nuyu fi di nuyu sunu mbokk yu ñu àndal jóge njara seer ci njiital sunu jëwriñ Serigne Abdoulaye Ndiaye ñu ànd ak bu am solo ànd ci ay góor ak i jigéen ay mag ak i ndaw nuyoo bi nag noo koy teg ci suñu waajur suñu maam di suñu bàyyi muy bàyyi Sadio Ngounda Ndiaye alxuraan di sàkk ci mbooloo mi ñëpp ñaanal ko suñu boroom yàggal ko fi lool ndax ak yàggam fi am na njariñ délégation bi ñu àndal nag Serigne Abdoulaye moo ko jiite ànd ceeg Serigne Moustapha Ndiaye xasida ak sëñ Ma Ibrahima Ndiaye Serigne Cheikhouna Dieye ak mbooleem soxna yi ñu àndal suñu limee dañuy juum baa duñu matal ak Serigne Modou Mbaye Ndiaye alxuraan mooy bokk ci délégation bi di am mbégte lool nag ak kontante ci ci bii di ci ànd ak xol bu sedd lool waa Ndiéré Banlo bu nu jëlee ab bis tuddee ko waa Ndiéré Sayar mën na ne dañoo delloo euh, mbàtt ci ndaal yi def noonu rafet nag lu am solo lool. ndax wax dëgg yàlla neexul ba neexul ñoom ñii ak waa njara seer gii bari na bis yoo xamante ne si dañ koy taxawal waa njara bal di ko taxawal di ci ànd ak organisation bi nga xamante ne si ne moo lëkkale mboolem organisation bu njare sa yar tey mu doon rafet lool lu am solo lool lu sedd xol lool loo xamante ne si ne lu jara la mu sax lool te yàgg lool moom daal mu néew mu gàtt am nañ xol bu sedd lool ci tudde gi nga xamante ne si ni jël ngeen bis bi tudde ñu ko ndax ku ci nekk xam na ni njara yi bari nan lool ngeen tànn ci njara sayar tudde ko bis loolu ak cant la akum ngërëm noo ngi leen ciy ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala seen jotaay bii mu yàgg lool te sax lool képp ku fi teew ren jii noo ngi ñaan ci màggug yàlla ak mbaaxu yonent bi darajey Serigne Touba màggug Cheikh Darou Assane Ndiaye ku fi teew ren bu déwénee jotaay bi su amee yàlla na nga teewaat ku fi indi saafara moo xam jàngoro ju mën di doon yàlla na ko suñu borom saafara képp ku fi indoon ay aajo te bëgg mu faju yàlla na ko suñu borom faj waaye di soññ suñu bopp te di leen soññ ci luñ mënta ci luñ bokk. te mënuñu koo seddoo muy famille bi famille na dafa yaatu ku ci nekk am na fu la yàlla dénk ñii fi de njara seer ñii féete ball ñii féete kër ma pend ñii féete feneen ak feneen ku ci nekk ci waajur yi ci kër nga jógee ci kër ngay dellu ku ci nekk del soññi sa njaboot ñuy teew ci mbooloo mi lépp lu waay man ci ak dimbulee aku rafetal aku doxu mbokk nga soñ sa njaboot ñu góorgóorlu ci baax a baax jamono ji léegi yàqu na woote bari na tey lii joxe bari na kon nag ku ci nekk fa nga féete na nga doxal ba ñëpp xam ne doxal nga ko moom daal mu néew mu gudd mooy Ndiara Seer kontaan nañ seen xool sedd na noo ngi leen di tey sàkku ci ay yéen ay ñaan di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom mbaal mu rëy te am lépp te man lépp mu yàggal leen fi guddal seeni fan. wéra seeni cër ngir yàgg koo taxaw at yi bari ci dara ñuy seex daanu aseen njaay noo ngi tuddi kàddu yi tey jéggulu lu ci jub suñ borom la lu ci dëng mat bi jëmm ji taxaw wax ak yéen la noo ngi siyaare mboolem njabootu suñ deeru sa njaay yi nga xamante ne si ne ñoo ngi gitaay bi muy kilifa yi di leen siyaare bu baax te di leen ndokkeel te baa dàqu baax a baax di suñu waajur yi di nuyu soxna yi ak ñëpp ak suñu baay gitaay bi yëpp noo ngi jéggulu lu jub ci kàddu yi suñ borom la lu ci dëng mate jëmm ji taxaw wax ak yéen la bëggoon nañ ma gën a jub gën a baax gën a am solo wasalaamu aleykum wa yàlla ñëpp am jàmm. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo